na la mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu saat ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fan fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tour sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko c s bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wi tax ñu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 رحمة ربك بمجنون bokk na ci itam yi nga xam ne xew na ci montagne sainte muy marale gi ko marale woon ak garab gi doon ko jéem a fetal te yàlla sottalu ko loola tolloo woon ak bisub talaata ba mu bind ci wax ne wahaba lil wahabu fi solaasa maa yuxjilu l wa salaasa wahaba yàlla mi nga xam ne mooy mayaakoon bi may na ma ci bisu talaata loo xam ne day gàcceel fukki officier yooyu ak ñett nga xam ne ñoo ko doon maanaam fukki yeeg ñaar ñoo ko doon jéem a fetal ak seen kilifa gi nga xam ne moo leen fukkeel ak ñett euh, ci xasida ak waqaan yi xafisun gi nga xam ne sax am na lenn ci gëstukat yi ñu jàpp ne fii fi Libreville la ko defee ma nga cay junjaat lu mel noonu di wax ne ajaarani al qahaaru min jumlati al ida wa xaanatuhum wa armaahuhum wal madaafiu euh, yàlla mi ki nga xam ne mooy kiy not am yàlla mooy maanaam notaakoon bi moo ma musal ci mboolem noon yëpp ñoom ñooñu nga xam ne seen xeej ya ak seen kanu ya da leen a wor da leen a wor waxaat na ko ci xasid ak rum naa sukuur allazi bil kaafi wa nuuni wax ne najawtu min fitanil aadaai id qasaduuni bil madaafiaa turran wa sakaakin mucc naa ci fitnay noon yi te waxtu woowu ñu ngi jóg jëm ci man yor seeni Euh, fetal yu ànd ak euh, ay ay maanaam ay paaka loolu xaw mel ne paaka wala wax dafa am di nga ay ñëw ka euh, ba noppi boole ci ay kano itam nag day tudd ay kano muy kon arme lourde boo xam ne tubaab bi doon na ko jëfandikoo ngir sëriñ bi moo loolu kon di firndeel ne fitna yooyu daj na ko fii ba ci yeer moomu nga xam ne dañ ko wax gasaloon taal ki sawara fii la fii lañ wax ne fi la xewe woon ci Libreville ba yàlla musal ko ci kon yooyu di ay xew-xew yoo xam ne xewe na fi mu nekk fi nag diir boo xam ne yàggut ba yàlla dogal Euh, ñu war ko fee jëlee nag yóbbu ko ci ñaareelu dëkk bi nga xam ne fa la gën a yàgg nag te mooy Mayumba foofa nag fa la am juróomi at te li firndeel ne ba lañ ko yóbbu bi mu jógee Libreville loolu bind na ko ci anam yu wuute danaa tudd rek wenn bayit woo xam ne bokk la sax yi ne ci ayesa waaye fi mu waxee ne tababu man bachara fii Libreville naqli li bafalin la daa taxawuli qaidatun ila balaa in azala bi izni baaqin li yaqaada munzala fekk boobu day wax ne Eh, day wax mujjug noonu yi nga xam ne ñoo ko génne woon andi ko ci réew mi fi leen yàlla mujjale ci alkande ba ba mu agsi ci ki nga xam ne moo nekkoon ci booba jamono fii fi Libreville te mooy kii méngoo signature bi ko yóbbu ba mu ne kooku alkandeem jooju nga alkande kooku nga xam ne moo signé moo jonjoo sama toxo jóge jógee Libreville dem Baafali Baafali mooy Mayumba rek xeet waa tudd noonu mu wax ne Euh, euh, ñoo foofa kii nga xam ne moom moo def loola kooku day yàlla dana ko al alkane joo xam ne moo koy wommat ba yóbbu ko ci balaa boo xam ne moo ko ber ci kàttanu yàlla mi nga xam ne moom moo ma wommatal alquraanam maayom ba nag fa la sëñ bi gën a yàgg def na fa def na fa juróomi at yu mat sëkk yoo xam ne nee na ci laa mujj mel ni ab jant xew-xew yi xewee maayom ba it yu takku la yu bari la yoo xam ne ma si ci tudd yenn rek ngir ngir bañ a euh, yaa xëy na guddal <coughs> bokk na ci fa la borom joxe jumaay njaareem ji ak jumaay tubaa ji te booba dafa samp ñeenti bantam ci buntu këram ngir bañ ñi ñi ñi ñi romb di romb ci fi nga xam ne fa lay dégg nga jullee def ko mu nekk jàkkaam jàkkaarloo ak fi nga xam ne mooy mission catholique bi nekk foofu bu hmm, buñ bu ñee di def seeni i seen i seen i seen i ñaan ak seen i seen i yooyu moom muy muy noddu ca kaw am na fa benn cloche bu fa nekk boo xam ne bañ ko fay indi wala bi ñu koy liggéey du war a sori ak ay 1897 yooyu nga xam ne kon sëñ baa ko fa jiitu tuuti ndax sëñ sëñ moom ay 1895 eh, xëy na jàpp 1896 la fay ñëw waaye gis nga ne gis na ne maanaam am na fa kolos bu fa nekkoon boo xam ne ñun maa ngi fàttaliku ci 2000 bañ fa demee am na benn labbe tubaab bu ñu fekkoon ànd ak Cheikh Matoda eh, bi ñu koy laaj sëñ bi mu ñuy wax ci histoire sëñ bi ba mu yàgg kolos bi dafa sone mu ne dem leen ngeen laaj kolos boobu Euh, ni fi Ahmadou nekkee woon Ahmadou moom wala boog Amadou moom noonu la ko tuddee muy sëriñ bi ndax moom ñoom ñaar bokk nañ fi nekk waaye bi mu sampee ñeent bant yi def ko mu nekk jàkkaam tubaab bi wala kilifa ga fa nekkoon daal di ñëw ne ko fii jàkk xewu fi santaane ne nañ ko buddi sëñ bi Lamin indi na ko ci Irwa ñu buddi ko sëriñ bi moom ci ni ko yàlla bindee woon daawul fayantoo daawul mer wala su meree du ko feeñal te te mer sax ngir yàlla rek a tax muy mer mu daal di jàpp njàmburam daal di tàmbali jël xalimaam di taalif xasiida goo xam ne mi ngi ko tënke rabbana axrijna min hadihi alqaryati zalimi ahluha wajal lana min ladunka waliyan wajal lana min ladunka nasira muy xasida gi nga xam ne moom la tàmbalee raditu an il mawla taala allati rabba fuaadi wa agnaani fa akrim bihi rabba والقلم وما يسطرون mbokki jullit yi compagnie C3S dellu siwaat ànd ak yéen nam ko baaxoo defee ci jongante bind alxuraanul karim édition ren bii nag dépôt yi ñeel candidat yi fas nañu yéene door ko benn pan ci weeru octobre mu war a jeex fanweeri fan ci weeru octobre yow mi bëgg bokk ci jongante yi da ngay bind am xët ci alxuraanul karim sa tur sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci boutique c 3 bu la gën a jege ci biir Sénégal wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bii di candidat point yaatal mbind topp tegtal ya lay jaarale ci yoon wi tax ñu mën a jot ci sa dépôt coppite ya ñu ci indi képp ku bëgg bokk ci jongante yi say at warta romb ñeent fukki at moo waral képp ku jàll ci xaaj bu njëkk bi da ngay indi këyit guy màndargaal say at photocopie d'identité wala et cetera ñi bëgg a bokk ci jongante yi te bokk ci région yii Matam Ziguinchor Tamba Kolda Sédhiou ak Kédougou mën nañoo dem ca boutique C3S ba nekk Wuro Sogi wala ba nekk Ziguinchor wala Tamba wala Serigne Ousmane Dia ma nekk Ranérou 77 784 15 46 wala Serigne Ahmed Tidiane ma nekk Matam 77 424 23 751 ku ci bëgg ay leeral foo man di nekk ci réew mi ak bitim réew 76 751 wala 70 736 36 36 alxuraan ay nga neel ku ca am ak na meel yàlla dal koy goreel anta bi ni'mati rabbika bi majnuun